الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين ثم أما بعد mbokki jullit yi noo ngi leen di nuyu nuyoob lislaam te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di dellusiwaat ci sunu jataayu alquran bi ñu baaxoo di amal àllarba ju nekk ci waxtu wi mu jëm ci téereb sunu borom bi subhaanahu wa taala nu war a tàmbulee tey jii ci sunu borom yàlla fi muy waxe ne yaa ayuha alladina aamanu laa tadxulu biyutan gayra biyutikum xata tastanisu wa tusallimu ala ahliha dalikum xayrun lakum laallakum tadakkaruun acuudu billahi min alshaytaan alrajim bismi llahi arrahmani arrahim يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم رجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون bismillahi irrahmani irrahim sunu boroom subhaanahu wa taala mi ngi woote ñi mi woo nag mooy ñi nga xam ne gëm nañ moo tax mu ne yaa ayuha alladina aamanu yéen ñi nga xam ne gëm ngeen ndax ngëm gi ci boppam mooy tax bu dee lu yàllay digle gëm gi nga ko gëm moom yàlla day yomb ci yow nga daal di koy jëfe bu dee lu yàllay tere itam gëm gi nga ko gëm moom yàlla day yomb ci yow nga daal di koy lan bàyyi moo tax sunu borom subhanahu wa taala saa boo xamee ne day joxe ndigal di deflu te moom li muy deflu du ci jariñu waaye ñi koy def loo ñoo ciy jariñu saa yoo xamee ne yàlla mi ngi tere te moom li muy tere su ko ñëpp maaso woon di ko def itam du ca loru waaye ñi nga xam ne ñoom la koy tere buñ ko bàyyee ñoo ciy jariñu sunu boroom day tàmbulee ci yéen ñi gëm yàlla yaa ayuha alladina amanu laa tadxulu buyutan gayra buyutikum dégg ngeen léegi ma jàng biyutikum xaalun loolu lay jàng shuba itam dana ko jàng bu leen dugg ay kër laa tadxulu buyutan bu leen di dugg ay kër kër yu mu nag kër yu mu ndax nakira bu ñëwee ci ginnaaw ak dàq tufiidul umum bu leen dugg ay kër yoo xam ne xayra buyutikum du seeni kër xatta tastanisu lu may ginnaaw bu ngeen miin li ko wa tusallimu ala ahliha ngeen nuyu waa kër ga dhalikum xayrun lakum loolu kat mooy li gën ci yéen laallakum ndax lee yéen tadakkaruun ngeen mën a xalam ngeen mën a fàttaliku sunu boroom subhaanahu wa taala dafa teral doomu aadama bokk ci teraanga ji nit mën a am kër mën a am kër nekk ca biir kër ga nga xam ne du dëkk ci mbedd mi du dëkk ci àll bi waaye day dëkk ci kër nekk ca biir kër ga am ak féex lool ndax nit féex gi nga xam ne dana ko yëg ci boppam bu nekkee ci biir këram ak ni muy tàllee féex mu mel noonu du ko yëg bu nekkee ci geneen kër rawat na muy kër goo xam ne këru jàmbur la yu baree baree bari du ko man yu baree bari nit du ko man su fekkee ne nekkul ci kërug boppam borom bi nee na wallahu jaala lakum min biyutikum sakana da ngay yëg lool ak dal da ngay yëg lool ak féex su fekkee ne da ngaa nekk ci sa kërug bopp kër gi borom bi subhanahu wa taala nanguwul nit ñi di ko ñaaj di ñëw rek di dugg waaye daa bëgg ku ñëw ku nekk bëgg a dugg ci kër gi dangaa war a yëglu dangaa war a yëglu su fekkee ne kër gi du këram maanaam ku ñëw ci kër goo xam ne du këram xuma nag nga ñëw sa kër donte ku ñëw sa kër li gën mooy nga nuyu waa kër ga waaye nekkul lu la war li gën mooy bu fekkee danga ñëw ci këru jaambur nga taxaw ca buntu kër ba yëglu xatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha ndax day benn am na ñu ko def muy benn am na ñu ne xatta tastanisu mooy rek xatta tastanisu xatta tastadinu ñoo bokk lu ñuy tekki am ñu ne bokkuñu lu ñuy tekki waaye waaw gi ci boppam daa tegtalewut tartiib bi maanaam man ngaa nuyoo dugg ci kër gi bu fekkee nee nañ la man ngaa jàll si nga dugg ba noppi nag walbatiku istinaas door a am man ngaa wax ne ah man day néeg bi daa mel ni bàyyiwuma ko fi woon ñu ne ah waaw waaw bàyyiwu ko fi woon de nga ne ah daal di tàmbali mel na daa am dangaa am jubluwaayu man xool lan moo fa nekk su ko defee nga ànd ak borom kër gi mu yóbbu la fa dégg nga am na ñooñ dañoo wax ne man ngaa taxaw ci bunt bi xàddamiku te naxnu ngir ñu lan yëg ne am na ku nekk ci bunt bi buñ demee ba yëg ne am na ku nekk ci bunt bi ne nga soog a nuyoo boy nuyoo bul jàkkaarloo ak bunt bi ne màkk bunt bi rawat na muy buntu kër boo xam ne si amul ay rido maanaam bu fekkee ne amul lu ñu muure maanaam amuñu ay rido buñ ko amul moo ñoom kër gi nga xam ne da ngay jàkkaarloo ak kër gi jàkkaarloo ne màkk kër gi loolu duñ ko bëgg dañu bëgg nga wetu gone yi dañ leen a war a yar ci bunt bu mel noonu gone bu taxawee ci ab bunt wala mag taxaw ci ab bunt warul def màkk bunt bi nga xam ne bu rido bi naawoon mu jàkkaarloo ak waa néeg bi bu rido bi naawoon mu jàkkaarloo ak waa néeg bi déedéet danga war a tafu ci wetu ndijoor wala nga tafu ci wetu càmmooñ ba noppi nag ne assalaamu aleykum def tekk bu fekkee ne tontuwuñ la nga newaat assalaamu aleykum def tekk suñ la tontuwuñ nga ne assalaamu aleykum def tekk matal nga suñ la tontuwul nga dem al istidaanu thalath loolu la yonent yàlla Muhammad jàngale nee na kuy yëglu ñetti yoon lañ la may bu fekkee da nga ne màkk bunt bi fekk bunt bi am na rideau rideau bi naaw nga jàkkaarloo ak néeg bi mën naa am ka fa nekk solut mbubu nga jàkkaarloo ak awraam mën naa am muy sa baay mën naa am muy sa yaay mën naa am muy koo xam ne waroo ko woon a gis waroo ko woon a gis ndax teggin la nga gis lu bokk ci sa baay ci awraam déedéet ndax teggin la nga gis lu bokk ci sa ndey ci awraam déedéet la la cay dimbale nag mooy yëglu rek sunu boroom subhaanahu wa taala ngir sàmm der yi ngir doomu aadama yi seeni der ñoŋ moo tax muy santaane ne bu kenn ci yéen dugg ci kër goo xam ne du këram lu may daa yëglu nuyu waa kër gi su yàlla dogalee ñu ne ko wa aleykum salaam mu daal di dugg soo duggee itam ci biir kër gi nga bañ a doon ku sob koo xam ne sa bët moom fa la neex nga sànni ko fa loola neex xool ci kër gi nit ñi nag ci bunt boobu dañ cee yërut seen bopp ñoom ñu bare bari yëruñ seen bopp ci maanaam man a téye seen bopp buñ duggee ci ab néeg tey seen bët fu nekk lay sànneeku ci biir néeg bi moo tax lu ne rondal ko sax dañ koy xool te bu fekkoon ne sax buñ génnee dañuy yaa téye lañu gis waaye ah gis nga li woon ci ron liggéey gis nga li mu wékki ci kaw ah kii da xam naa dóorekat la ak fetal la fi la fi kii yépp ci sob la bokk boo duggee ci ab néeg da ngay yaru bañ a sànni say gët say sab xool fu nekk nga xool fa fu ne nga xool fa lu ne nga xool ko wallahi doomu aadama yi fii niñ fi ñàkk a yaroo dafa jéggi sax danañ xool ba xool loo xam ne si waruñu ko woon a xool ndax néeg bi itam am na fa loo xam ne wax dëgg yàlla loo loo mën a mën a denc mënu koo dencee noo xam ne nit nit ñi di ko gis te doomu aadama am na loo xam ne boo ko xoolee ci néegam wax dëgg yàlla ba bu soño doo ko gis loolu moo tax suñu borom subhaanahu wa taala santaane fii loo xam ne war nañ koy bàyyi xel lool lool mooy kenn ci nun bu mu duggati mukk ci ab néeg lu may daa yëglu ca buntu ba asalaamualeykum gone yii tey dañuy jékki-jékki rek dugg ci am néeg dagge ca làng ga rek ñëw dugg ci biirum néeg koo ci xam ne doon na def loolu ci yéen ñii na xam ne loolu du ay teggin daa bokk ci njàngum lislaam mooy bu ñuy jàngal gone yi alquran ñu jàngalaale leen li alquran di jàngale waaye di mokkal di dem rek wóor na ma ne lii may jàngale nii am na gone yoo xam ne jàng nañ ko am na ñoo xam ne wàcc nañ koo ci laaj footol mu ne laata tabioo laa toll laata tabioo waaye laata tabioo sax amul lu muy dégg sunu borom subhaanahu wa taala daa santaane yéen a ngi may dégg ku ci bëgg a dugati ci am néeg bul jàkkaarloo ak néeg bi maanaam bul jàkkaarloo ak bunt bi nga xam ne bu rido bi naawoon nga jàkkaarloo ak li ci néeg bi waaye na nga tafu ca wetu càmmooñ wala nga tafu ca wetu ndijoor ba noppi nag assalaamu aleykum ngay wax def tekk diglu bu dee itam da ngay fëgg bu mu nekk fëgg go fëgg fëgg bul fëgg fëgg bu tara tar tar tar tar loolu itam du ay teggin loolu du ay teggin ab bunt ndànk nga koy fëgg ndànk ngay fëgg ab bunt gis nga nit ki daanaka xaw ngaa mën a xam sax ab yaram ci yu mel nii rek daanaka xaw ngaa mën a xam moom ni mu xame biri ci bunt yu mel nii te yu mel nii day tax ñu xam ne yow mii day wax dëgg yàlla xamu foo yaroo waaye am nga ab yar lool kii day buy fëgg sax daanaka boo deful ndànk doo xam ne mi ngi fëgg xoolal kenn ci yéen ñi bu dellu woon kër baayam wala mu dem kër ndeyam ànd ak teggin yi nga xam ne jot nañ ko faa jàngal donte moom sax xamagut lan lay tekki waaye wax nañ ko ba mu dégg ko ba jàpp boo yëgloo ñetti yoon buñ la waxee jàll sil nga jàll si buñ la waxul dara nga xam ne waa néeg ba dañoo jàpp nga dem am na koo xam ne ci saxaaba yi mas naa yëglu ñetti yoon joxuñu ko ndigal mu dem muy abu musa al ashari fekk omar la doon yëglu omar noppi daal di laaj daal ne waaw dégguma woon léegi abu musa al ashari ci buntu bi ñu ne ko aha kay mu ne anamu ñu ne ko dem na bam ko gisee laaj ko ne ko lu tax nga yëglu joxaguma la ndigal nga dem mu ne ko damaa yëglu ñetti yoon te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa jàngale ne ku yëglu ñetti yoon buñ la joxoon ndigal da ngaa war a dem mu ne ko xadis boobu mosuma koo dégg ci yow laa ko mos a dégge te faw danga ma indil ko la ñaareel ku ko dégg wa illaa duma laa lay def ndax yonte yàlla Muhammad kenn du ko waxal loo xam da ngay jekki-jekki di ko wax noonu mu tiit lool bim ñëwee ci lansaar yi dañ koo seen muy ñëw rek ñu xam ne kii am na am tiit ñu laaj ko lu mu doon mu ne Omar moo ma moo ma wax ne ma faw ma indi ku ma ñaareel ci dégg al istidaanu thalath Abu Saïd al Khudri ne ko lool kay ñoom sax ñoo ne ko lool kay suñu gone yi sax daanaka man ñu ndaw ñi sax lañ lay booleel Abu Musa al Ashari la àndal mu dem ne ko man mii dégg naa yonent yàlla Muhammad jàngale loolu loolu li muy tekki mooy Omar ak li muy doon doon xalifa am na lu ko réer. ci li yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doon jàngale ñi jàpp ne nit dana àgg ci daraja foo xam ne dara du ko réerati ci lislaam xanaa dañoo xamul xadis bii te xadis bi xadis la boo xam ne bu wér péng la loolu dal na Abu Bakarin radiyallahu anhu dal na Ali ibn Abi Talib ndax yonent yàlla Muhammad nekkul na jataay bu muy jàngalee bu nekk rek da nga fay nekk am na ca loo xam ne koy fekk am ci loo xam ne dañ la koy jotali léegi boo ne assalaamu aleykum def teg asalaamaaleykum def teg asalaamaaleykum def teg ñu ne la yow a kan bul ne mana mana moom duy wax mana danga naan man la xaadim njaay wala man la seex jóob nga xam ne ngay jaar ci saw tur inna nii ana allah inna nii ana allah waaye man a moom ku jubuta koy wax ubbil rek man la looy làqutu xoolal teggi nii ni ko lislaam di jàngalee te lépp day joxe ak leer ngir lan dañuy bañ doomu aadama bëtam di tegu ci awra bëtam di tegu ci awra boo ngeen demee ci ñi nga xam ne sàmm sàmmunte wuñ ak yu mel nii buntub awra moom daanaka dañ koy sàggane lool te buntu awara fu mu sa fuñ fuñ ko sàgganee rek waliyaasu billahi taala li yàlla yi tere ci kanam dana am kon yéen ñi gëm yàlla laa tadxulu bu leen tàbbeeti buyuutan ay kër yoo xam ne xayra buyuutikum du seeni kër wala bu leen tàbbeeti ay néeg yoo xam ne du seeni néeg xatta tastanisu lu dul lu may gannaaw bu ngeen miin li koo wa tusallimu ala ahliha ngeen nuyu waa kër ga daalikum xayrun lakum looli moo gën ci yéen yàlla nee na loolu moo gën ci yéen laallakum tadakkaruuna ndaxte lee ngeen mën a fàttaliku ndaxte lee ngeen mën a xalam ba mën a jële ci atte sunu borom yi subhaanahu wa taala lu leen mën a jëriñ ci seen addina borom bi tekki ne fa in lam tajidu fiha ahada boo ñëwee ci kër gi nag yàlla dogal nga yëg ne kër gi kenn nekku fi wala nga ñëw ci buntu bi yëg ne kenn nekku fa in lam tajidu bu fekkee ne fekku leen fiihaa ci kër yooyu wala ci néeg yooyu ahadan kenn ndax kon danga naan gannaaw kenn nekku fi rek naa dugg falaa tadxuluha bu leen fa dugg de bu leen fa dugg de ba kañ xattaa yudana lakum ba keroog ñu leen di jox ndigal ci dugg boo ma laajee ne waaw bu fekkee kenn nekku fi danga fay taxaw ba bañ lay jox ndigal waa ku lay jox ndigal suba ba mën naa am boroom kër gi daa génnoon seen na la nga taxaw ci buntu mu ne ah eh foofu kër kenn nekku fi mën ngaa dugg nga dugg wala am koo xam ne dalaat gis ci buntu néegam ngay ngay ngay nuyoo mu ne la ah foofu kër kenn nekku fi mën ngaa dugg borom bi nee na li feeg joxu la joxuñu la ndigal bul dugg ñu baree bari ci ñun nag buñ seeti woon seen xarit. fekku jëkkër fekkuñu ko ci kër ga taxaw nañ ci buntu ba nuyoo kenn joxu leen ndigal dañuy daal dugg moom ne saraax daal di jëlub sees toog buñ fa fekkee lu ñuy seetaan ñu tàmbalee seetaan buñ fekkee kafe ñu tàmbalee xelli buñ fekkee wantiloo ñu taal télé ba ñu daal di taal ñoom daal jàkkaarloo toog nag fekk ña ngay wóoteeg alxuraanul karim la yàlla jàngale moo ne kër googu nga xam ne dangaa taxaw ci buntu bi yëglu kenn picc déggoo picc yëg nga ne picc nekkul ci kër gi nga daan ne saraax dugg ci biir bu la fa borom kër ga fekkoon mën na laa se- jiñ ak càcc mën naa dugg ci kër gi am loo xam ne ko faa bàyyi woon gisu ko xelam faaw mu ñaaw day jàpp ne yow mii nga xam ne daa ñëw fekk la ci biir kër gi moom day jàpp ne yow mii yaa ko jël même bu fekkee ne waxu la dara itam day jàpp ne yaa ko jël nga daal di indi njort njort lu ñaaw néegub jàmbur itam ku taxaw nuyoo kenn joxu la ndigal nga yëg ne kenn nekku fi itam bul dugg ci biir néeg bi ndax boo duggee ci néeg bi mën naa am borom néeg bi ñëw fekk la ci biir néeg bi sax mën naa mu ubbi jël rido bi rek ah ah sëñ bi kon yow foo nga ne amoon kay damaa ñëw rek fekkuma fi kenn mu dugg loolu sëñ bi moo dul ay wax loolu moo dul ay wax te yii may wax yëpp gis nga nit ñaa ngi koy dund yii may wax ne yëpp nit ñaa ngi koy dund man kay damaa ñëw rek ah fii saa kër du sa kër du sa kër kat ah nit ñi dañuy dañuy dañuy dañuy def yoo xam ne si ba noppi di ko layale yoo xam ne si saxut kër gi du sa kër doonte sax kër xarit la du sa kër ay soxnaam ak ay doomam ak i njabootam ak yi muy denc yëpp ci kër gi la ko denc yooyu nga bàyyi ci xel borom bi nee na wa in qiila lakum urji'u buñ leen waxee dellu leen dangaa yëglu ñetti yoon kenn waxu la dara ba yàgg ñu ne la ah nga baal nu kat danoo jàpp borom bi nee na farji'u dellu leen kuñ ci wax ne nun kat danoo jàpp yàlla nee na na nga daal di ñibbi dellul ñibbi waaye xoolal lii tey ku taxawoon ci buntub néeg yëglu ñetti yoon ba yàgg boroom néeg bi ne la ku baax boo mënoon a jàppale day ba beneen yoon nga soog a ñëwaat dana baax lool danoo xaw a jàpp de booy ñibbi nii ngay def di fi cax loxo su ma fi ñëwatul mu doy su ma fi ñëwatul mu doy kenn du ma ñàkkal ful la yii ngay wax yow yaa nga yaa ñàkk ful la yow suñu bopp yow suñu borom yàlla moo la wax ne la ci alquran buñ la waxee ne la wàññeekul delluwaatal delluwaatal yow xoolal boo doon delluwaat te fekk yënga ne yàlla moo ne farji'u nga yëg loolu ni muy neexe ci yow mu wóor la ne lii suñu borom yàlla moo la ko sant moo tax kenn ci salafu saalih daana wax ne man de laay ji maanaa jéem naa jéem-jéem ngir am rek am ci am ci ndeysaan ku ma ko wax waaye ba léegi mënaguma ko am maanaam ne damaa ngéejoo dem ci ak kër ñu ne ma maanaam mu dañoo jàpp ne loolu dama ko ngéejoo lu tax ndaxte nee na su may dellu borom bi dane huwa azkaa lakum xoolal ñooñu ni ñu ni ñu ni ñu doon dundee borom bi nee na loolu moo gën a sell ci yéen ñàkk ngeen ñàkk a dugg léegi bu fekkee ne tey da ngaa yëglu ñetti yoon joxuñu la ndigal nga daal di ne saraax dugg. daanaka xam naa da ngeen kii rek fekk leen ndekete ñoom ña nga ca yoo xam ne si wax dëgg yàlla sa bëduuru ko woon a gis yaa nga fekk ñu teg ca kaw lal ba lal ba laa wax ñu ñu jug fa yoo xam ne si wax dëgg yàlla waru ko woon a gis wax dëgg yàlla waru ko woon a teg bat suba nooy def raay sax ndong te génn rek waaw na ngeen ba ngeen baal ma de ngeen baal ma de lii mooy ak baadoo la nit day civilisé ak mbaadoo la ci boppam daa am ñu koy dund. te mbaadoo la mooy ñàkk jëfandikoo lislaam te gis ngeen lislaam daa raw lool lool yeneen jàngale yi da leen a raw lool li ba ko yàllay jàngale booba booba li ñuy wax civilisation sax amagut wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum waaw léegi bu fekkoon ne man maa toog dégg nga fekk daa am ab xaalis boo xam ne moom laay wàññi ab xaalis bu may wàññi ci biir néeg bi jamono bi ma koy wàññi nga xam ne bëgguma wax dëgg yàlla kenn ku ma fa fekk ah nga yëglu man joxuma la ndigal néewuma la wa aleykum salaam war ngaa am xel dem ñibbi waaye bis boo duggee fekk ma maanaam ma jal ab xaalis bu bari ci kaw lal bi di ko wàññi su boobaa ana looy wax xanaa nga rëccanti ko rek naan xam naa ne xaalis bi ki ngeen may bañ a may nit ñi da xam dañoo dañoo mën a rëccantiku ñoom tam xam naa xaalis bi doon ngeen mu ngeen may làq nañ jëfandikoo li yàlla sa borom santaane bu fekkee dañoo bëgg a am ndigal ngërëmul yàlla nañuy jëfandikoo li suñu borom yàlla santaane xoolal lii bu fekkoon ne ñu ngi koy jëfandikoo ñu ngi koy jëfandikoo ci kër yi aay yi bu ñu ko doon jëfandikoo ci biir kër yi ni ni dundin wi di selle wa in qiila lakum irji'u farji'u huwa azkaa lakum suñu borom yàlla teg ci lan wallahu suñu borom yàlla nee na alimun ku xam la bi ma taamaloona li ngeen di jëf yàlla nag lépp loo xam ne yéen a ngi koy jëf xam na ko te kenn ku nekk la ye- la yey ci sa jëf bu dee lu ñu war a fay la lu baax dana la fay koo xam ne itam la nga def dañ la caa war a fay loo xam ne safaan la des na la ci fay suñu boroom daal ciy teg lan laysa aleykum junaax amu leen benn bàkkaar ci lan antu an tadxulu buyutan ngeen dugg ci ay kër wala ay néeg yoo xam ne xayra maskuna kenn dëkkewu ko waaye fiiha nekk na ca biir kër yooyee mataa loo xam ne maanaa lu ngeen mën a bànnee xoola fiiha mataaun lakum loolu mooy lan borom bi nee na nga ñëw ci kër goo xam ne dañ koo tabax nii mu yor shaklu bayt waaye kenn dëkkewu ko bu njëkk dañ daan tabax lu mel ne ay dallu ndalu ay dallu ndalu mooy ay hôtel dañ ko daan tabax ci yoon yi nga xam ne boo fa duggee wax dëgg yàlla da nga fay dallu te itam mataa la da nga fay bànneexu waaye kër gi du kër guñ dëkke foofu moom yow sa jëm bopp mën ngaa ñëw rek dugg noonu itam ay wanag noonu la demee ay wanag kenn du taxaw ci buntu wana asalaamaaleykum wanag kenn dëkkewu ko kenn dëkkewu ko moo xam wana ya daa nekk ca marché ya muy ca jaya wala mu nekk ci biir kër yi kenn du taxaw ci aw wanag ci buntu ba naan asalaamaaleykum déedéet ndax kenn dëkkewu ko te fiiha mataaun lakum mooy boo fa duggee yow sa jëm bopp mën nga faa faj sa aajo wala léeg-léeg ab saal ci ak kër ab saal ci ak kër kenn dëkkewul saal bi ab saal ci ak kër kenn dëkkewu ko te fiiha mataaun lakum mooy dañ fay noppaloo fiiha mataaun lakum mooy mën naa am ay tàppeeg yooyu yooyu nga xam ne waa kër gee ko moom fiha mataaun lakum ba tey mën nañ koo tekkee mataa muy ay bagage wala magasin bi nga xam ne mi ngi ci biir kër gi nga xam ne dañ faa denc ay bagage donc boo fa taxawee koy nuyu moo tax itam duñ bëgg ak ak ak doppooral nekk ci yow ba tey nag ndax fi ñu dal ne aw buntu wanag ku fa taxaw di nuyoo buntu saal ku fa taxaw di nuyoo buntu magasin ku fa taxaw di nuyoo wax dëgg yàlla nag sa sa sa sa sa bopp feesut waaw sa bopp feesut waaw bu ñu waxee nga naan waaw lu gën a wóor déedéet li gën a wóor mooy li yàlla wax dégg nga laysa aleykum junaax an tadxulu buyutan xayra maskuna fiha mataaun lakum alxuraan jiitu jiitu sëñ bi njàngale yi laa ilaha illallah moo tax dëgg-dëgg daal da ngay yi da ngay da nga naan da nga naan jullit ñi liñ ñàkk li jullit ñi ñàkk biñ bàyyee alxuraan kenn xamu nu mu toll borom bi ne ne wallahu yaalamu yàlla moo xam maa tubduuna li ngeen di lan feeñal wa maa taktumuna ak li nga xam ne moom ngeen di nëbbu seeni mbir ya ca feeñ seeni mbir ya ca nëbbu lépp suñu borom subhaanahu wa taala xam na ko loolu moo tax sax mu leen di jàngal loo xam ne bu ngeen ko jëfandikoo seen dund gi dana jag borom bi subhaanahu wa taala lan la ci teg ah qul lil muminin yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxal ma ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla loo leen di wax yaxuddu nañuy damm min absaarihim lenn ci seeni gis min absaarihim lenn ci seeni seenub gis fii borom bi daa wax yonent yàlla muhammad ne ko neel ñi gëm yàlla ñuy damm lenn ci seeni gis mooy ñu koy sajj sajj ab gis mooy bañ koo xool rek maanaam mu ne jàkk dara nit ab xoolam warta àgg maanaam ab xoolam war na ko wàññi wàññi xool bi bi maanaam mooy doo xool dara ne ko makk rek ne ko jàkk rek nga xam ne sa léppi xool bee dem loolu dañ la koy tere rawatina loo xam ne dañ laa tere nga xool ko fii yàlla waxut ñu damu seenub gis ci lan waaye xam nañ lan lay wax mooy lépp loo xam ne awra la lépp loo xam ne si sañoo koo xool jigéen ji nga xam ne boo doon takk soxna man ngaa dem takk ko ndax du sa la du du sa- du sa koj araam a- araamaloo la- ara araamaloo araamu la moom jigéen ji sa doomu najaay la sa doomu bàjjan la wala muy koo xam daal maanaa moom araamu la mën nga koo dem tekki kooka boo daje woon ak moom ci mbedd suñu borom yàlla dalaa sant nga dammu sab gis nga dammu sab gis ak jëpp jigéen joo xam ne ci boppam maanaa dëgg dagan na la ci ak teg kooku itam da ngaa war a dammu sab gis waaye su fekkee ne da ngaa siggi rek yem ci da ngaa siggi rek yem ci dañu bëgg nga sajjaat gis bi xool bu njëkk boobu noonu doo ci am bakkaar ndax du sab jubluwaay yontu yàlla Muhammad nee na xool bu njëkk bi doo ci am bakkaar waaye xoolum ñaareel bi nag moom danga ci am bakkaar kuy indi falsafa naan waaw gannaaw xool bu njëkk bi maanaam dagan na kon naa wéy rek di xool dañ lay wax ne la al istimraaru ala al xaraami xaraamun maanaam diggante bi nga sañ a xoole damm sab gis mooy bi nga xamee ne bi ngay xool jubluwoo woon waaw léegi ma laaj leen jamono jii ñu toll nii ndax lii yomb na fi ah yomb fi de nit ñi buntu bi daanaka yëguñu ko sax da nga gis koo xam day tiim ay jigéen di leen jàngal di leen da leen di xool normal man da leen di xool seetantal leen seetan ñëpp lay seetantal ku ku ci ñaaw ak ku ci rafet ak ñëpp waaw xool bu leer la leen di xool te loolu yàlla da ko wote de yàlla dana ko maanaa maanaa bu mënta ñàkk nga sajj sa xool maanaam man ngaa xool xar kanam waaye boo xoolee da ngaa war a sajj da ngaa war a sajj jigéen ñi sunu borom yàlla dana leen beral léegi loxo ci yeneen laay joxane ñoom la ciy waxal ñoom tam waaye fii góor ñi lay waxal nañuy damm seenub gis waaw nga dem ci ak kër diggan ñu daal di lay sànni ab album ci digg lal bi nga toog ñu ne la kooku sax mën naa am danaa la saa soxna si de moo céetam gi photom yaa ngi noonu yow yaa ñàkk bopp yow tam waa ji toog sa waay xool lépp ba mu jeex laa la wax allahu akbar Hii, laa ilaha illallah subhanallah waa ji daa toog di ko wulbati par benn laa wax léeg-léeg sama commentaire nag bii de moo gën a rafet ah jëkkër jaa ngi toog kat la hawla wala quwwata illa billah ah borom bi nee na dambu leen seen gis yi kooku ku la yeb ku la yeb doo nga la koy jox M- ab album moom ku la yeb doo nga la koy jox mooy xoolal lu araam la lay wax xoolal lu araam man ngay xoolal lu araam man ngay xoolal lu araam te dencal sa album bi te gis nga bu ñuy photo wu ñoom jigéen ñi te nam gën a ñànge rek noonu la ñuy photo woo nam gën a ñànge rek moom la ñu sànni léeg-léeg ci ci li ñuy wax statut yi moo ci am fi mu toll nii statut yi ñu bëree bëri maanaa dañuy yor seen i appareil daal di da- da- indi statut yi di xool ñoomu neen nag ñoom ñoo yàlla donc di xool yi yëpp la ñuy xool ñoom tam te mën naa am ñu jàng lañu sax ah ah da xam nga jamono ji itam ni mu ni mu bindoo dafa doy waar te xool boobu ngay xool di ko xeeb sa xool bi lay yàq ndax ay bët ci boppam lépp loo xam ne si jaar na ca rek ca xool ba la jëm. dana xañ xol bi ak leer ak leer du ca nekkati sa digg ak sunu borom yàlla loolu mën na laa xañ sax jàng alxuraan dootu ko man ndax ab xol bu tilimee rek wala yaasu billahi taala bépp bàkkaar boo def ab tomb la ñuy def ci biir xol bi bu yàggee raynu lay doon kon borom bi daa santaane ñu ñu sa- ñu ay doon ay góor nañuy damm seenub gis buñ noppee ñu teg ca lan wa yaxfasu ñu sàmm furujahum seeni pëy fii moom waxut wa yaxfasu min furujihim pëy moom lépp la ñuy sàmm mana xanaa sa soxna xanaa sab jibéer bu fekkee ne ab jibéer sañ nga koo am te sañ nga koo am ci lislaam waaye nag amatul xoolal yàlla ni mu tegelee damm ab gis sàmm sa pëy ku dul damm sab gis mënoo sàmm sa pëy ndax bu fekkee da ngaa bàyyi sa bët yi nii muy xool di settantal day mujj da ngay ñeme da ngay mujj ñeme jigéen ji da nga koy mujj ñeme da ngay mujj ngeen di xoolante yéen ñaar xoolante boo xam ne amatul sax lu fi jaar. nga di ko xool mu di la xool su boobaa mënoo ci tus nga ci mënut en tant que nit koo xam ne ak góor la am ay yëg-yëg lii ngay xool nii mu nekk bànneex danga koy yëg bu yàggee lu mu lay jural ngay wax ak moom danga doon xool ba yàgg ngay wax ba yàgg nga muuñ fa nadaratun fa ibtisaamatun fa kalaamun ba yàgg sax maanaam wal yaasu billahi taala gis nga maanaa maanaa wallahi fii nii su ma ci dee wax sax day me day mel ne man damaa mucc te fekk mucc ma waaye man li yàlla santaane mu xam naa ko jigéen du ñooxu góor jigéen du ñooxu ak góor sës ci moom daanaka mi ngi lay xaw a laal di jigéen du ñooxu ak góor na taxaw fële la muy wax mu wax ko ba noppi sajj ab jisam sajj ab jisam moom tam borom bi nee na wa yaxfazu furujahum moo tax ñu bëree bëree bëri mënatuñoo sàmm seeni pay mënatuñoo sàmm seeni pay ah gannaaw yaa ngi ak sa portable yow di dugg fu la neex di xool lu la neex boo noppee ba teg ko nii ah la yëngu ci yow daal di yëngu rek ah bu ko defee nga daal di nga nga nga nga nga daal def lu arab wala yaasu billahi taala mastur bi yow bii ngay dégg ak li ñuy wax istimna ak mballu ci wolof loolu dong moo ko jur mooy mën a xoole rek di xoole di xoole ba mën a toog ko muñ mujj nga toog ci ab benn barab yow ko teg yàlla wala yaasu billahi taala di foyee sa bopp di foyee sa bopp ba am lu génn ci yow nga danga soog a nag da ngaa féex xam nga ne bo yow suñ borom lam wax ci alxuraan ne fa man ibtaxa wara dalika fa ulaayka humul aadun tàbbi nga ci biir dégg nga amul nag kenn ku ko mën a dagana loolu dëgganut loolu dëgganut moo xam ci góor la moo xam ci jigéen la dëgganut te jamono ji moo gën a naqaree moytu jamono ji ñu nekk nii nii moo gën a maanaa bari ay mooy yàlla dafa bari mooy yàlla jamono yi jigéen ji duñ la ci dimbale ndax ñoom soluñu xoolal jigéen joo xam ne si lim sol ni maanaa fii fii loxo bi yépp ngi feeñ lii lii lépp laa wax mi ngi feeñ te lii moo war a lii lii moo war a génn lii da alxuraan dana ko jàngale léegi nii lii yow te lii lépp mi ngi feeñ am te ñoo xam ne seen dënd baa ngay feeñ am ñoo xam ne seen ginnaaw ga te itam yére yi ñu sol ñoom ñoo koy ñawee noonu ñoo koy ñawee noonu ah dëgg dëgg dëgg loolu góor gi lu mu bëgg bëgg bëgg sàmm boppam itam wax dëgg yàlla te bu fekkee ne junni jigéen a koy romb ñëpp mel noonu yàlla rek ko mën a sàmm yàlla rek ko mën a dimbali borom bi nee na dee leen damm seen gis yi yàlla na ci yàlla saa borom dimbale wa yaxdu furujahum daalika ah waaw kay borom bi neen loolu mooy li gën a sell ci yéen daalika azka lahum inna allah xabiir yàlla ku xam la bi maa yasnauna li ñuy def ñoom doomu aadama yi ku damm sab gis ak ku dëmut sab gis ab yépp suñu borom yàlla nee na xam naa ñiy damm seenub gis ak ñu ko dëmut ndax li ngeen def lépp laa xam ayoo jigéen ñi seen wàlla ngi nii waxul yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam lil mu'minaat ñi gëm yàlla tey jigéen yàlla fi lil muslimaat de waxul dem lil muslimiina imaan ngëm ñi am ngëm lay waxal nee leen yaxdud na ñuy damm min absaarihina ñoom tam bu njàpp góor di ko xool rek boo waxee ñaanal kii boogaa la waaye man dëgg dëgg dëgg yëf yi yëf yi yëf yi ah xàmmee nañ góor ñi xàmmee nañ leen xàmmee nañ leen ndax gannaaw lu leen neex lañ leen di xoole yàlla nee na yéen jigéen ñi gëm yàlla yàlla nee na maa ngi leen koy jotli ngeen damm seenub gis ku dul seen boroom kër bu ngeen ko xoolee na ngeen sajj seenub gis léeg-léeg jigéen ndeysaan ñàkk gi ñàkk xam léeg-léeg mu toog sax naan la kooku nag bëtam yi ni mu ciyee yow noo ko xoolee ba gis bëtam yi yàlla nee na ngeen damm seen gis yi waaye fas na tañu sàmm furujahun na seeni seeni pëy waaye lii itam gis nga bi nga xamee ne jigéen ñi tële nañ ko itam gis nga li fi xew gis nga li xew léegi néew na waxambaane woo gis téeméeri waxambaane yoo jël ci xeet wii ñu nekk nii juróom-ñeent fukk yëpp illaa ma rahima rabbuka maanaam am nañ yi ñu doxal ci suuf juróom-ñeent fukki waxambaane yëpp am nañ la ñuy doxal ci suuf loo xam ne du yoon ndax sunu borom yàlla lim leen sant mën naa am xamuñu ko wala buñ ko xamee itam jafe na ci ñoom ñu jëfandikoo ko borom bi nee na jigéen ñi nañuy damu seenam gis tey sàmm seeni pëy wala yubdiina te buñ feeñal zinatahunna seen taar seen taar buñ ko feeñal illa ma zahara minha lu ci dul la nga xam ne daa feeñ moom man a yére bi nga sol yow jigéen ji yére ba mënu ko laq li nga xam ne maanaam mënu ko laq loolu moom suñu borom yàlla may na la mu feeñ wala lam sa tënk yi sa tënk yi yi waaye ñëw boo xam ne fii la fii fii fii la fii la yem maanaam maanaam ki ko doon ñëw fii la ko yemale nga xam ne yow loxo yi ci boppam judul ah xar kanam gi itam bokk na ci li nga xam ne ci ñenn ci ulama yi nee ñu illaa ma zaara min haa ci lay duggaale mooy lan mën naa feeñ xar kanam mën naa feeñ góor gi am na sañ-sañu xool xar kanam nga bu fekkee du caa bànneexu te bu ko doon xool yëgg caa bëgg caa yëg bànneex dañ ko koy tere day araam ci moom wala yubdiina zinatahunna illaa ma zaara minha waa léegi lu suñu borom yàlla naan jigéen ñi bu ñu feeñal seen taar seen taar seen ziina ndax ziina ñaari xaaj la am na ziina boo xam ne daa daa daa daa daa génn ci bitti am boo xam ne si daa nëbbu bépp ziina boo xam ne si daa war a làqu suñu borom yàlla mayewut jigéen di ko feeñal waaye nag gis nga ko jigéen ñi léegi seen ziina bi yépp ci bitti la nekk ah lépp lu ñuy taaroo dañ koy génne mu fis lool góor ñi di jàkkaarloo ak moom. borom bi subhaanahu wa taala lu mu ci teg wal yadribna bi xumurihinna ala juyubihinna nee na seen muuraay yi moom yàlla nee na seen muuraay yi nañ ko takk ci seen bopp yi mu wàcc muur seen xar-xari baati mbubb yi xar-xari baati mbubb yi mooy lan jigéen nga xam nga baatam bi fii dañ koy xar boo cee muuraay gi na muuraale dënd bi fii bàyyi ko mu las fala ci ginnaaw ga nga xam ne ndodd mi kenn du ko gis kenn du gis dënd bi nii waxuñu musóoru de waxuñu musóoru musóoru du muuraay ak lislaam dégg nga musóoru jamono bi nga ko defee bokkut ak li yàlla santaane fii yàlla daa santaane ne sa muuraay ga nga wàcce ko ba muur sa xar-xaru baatu mbubbi fii lii bu mu feeñ lii bu mu feeñ ndodd ma itam kazaalika bu mu feeñ nopp yi kazaalika nga wàcce ba nga xam ne si la ca nekk ci ab taara yépp génnut wala yubdiina zinatahunna illa ma zahara minha man damay wax ne yàlla moo jàngale muuru léegi nag jamono ji nim yàqoo ñu ne ah day day ibaadu la ñuy wax day muuru muuru ibaadu luy loolu luy muuru ibaadu xanaa muuru lislaam saxaabiyaat yi bi aay ji wàccee ndeysaan ngir bëgg koo jëfee tax na ndeysaan seen seen seen seen seen seen séri dañ ko xar fa saasa dañ koo dagg tàmbali ndeysaan di muuru bi laay ji wàccee rek jigéen ñi léegi ci buntu muuraay sax léegi dañ ciy wut modd seen moddi bopp ay muuraay yoo xam ne si muuraayu taar la nga xam ne jublu ñëw muur bopp bi ne mais dañoo bëgg itam muuraay gi taaruwaale loolu itam ndax day yaraax lool ba nga xam ne da nga gis bopp bi di gis di gis létt yaag yépp da nga koy gis loolu itam bokkut bokkut ci sarti muuraay muuraay moom jamono bi nga koy def da ngay jëm ne li la yàlla sant moom ngay def mooy na mu nekk muuraay goo xam ne du yaraax du yaraax ba noppi itam day muur bopp bi yépp wax dëgg yàlla jigéen lislaam da ko fonk lool lool lool moo tax mu di ko muuruloo te muuraay googu mooy tax nit ki maanaam kii rëy ci moom ba man koo sàkku ji ci anam goo xam ne si lu ne mën na ko caa mën na ko caa def waaye bu fekkee ne lépp génn na tey lépp a génn ku ne xam na ne boo demee fee ca fëgg jaay ba yére ya nga xam ne boo ci yëkkati cent francs lañ ko jaay wala deux cent même yére bu mel noonu da nga ko fekk maanaam ñu emblé ko ñu di ko jaayee ay dix mille dix mille lu tax dañ ko muur moo tax mën naa am bee ñuy jaayee deux cent sax booba mu gën a dëgër fuuf waaye dañ ko ubbi ñëpp jàkkaarloo ak moom tey jigéen noonu la yombe tey jigéen ñi dañoo yomb boo demee ci place yi nga xam ne place publique la dañuy wute ak jigéen nga xam ne moom dañuy daa mel ne jigéen ki la ñuy jaayee station yi ñoo fa nekk sëriñ bi boo demee ci épicerie yi ñoo fa nekk te itam duñ jël ku ñaaw indi ko fa waaw ku mën a am indi problème lañ fa indi teg ko fa moom tam moom tam mu yëg loolu ba ah nga xam ne même client yi ni mu leen di wax ni mu waxee ak ñoom ak yooyu yëpp ngir rek léegi ngi waa joo xam ne jëndul dara sax waaye kii rek mu ko fi indi jëndul dara la jëndul ah xam nañ loolu parce que loolu loolu njàngalem tubaab tubaab bi moo ñuy jàngal yu mel noonu. ah ñu pour attirer la lañ ko tuddee attirer day attirer nit ñi ah jëndal wala nga def sa yoon da ngay wala mu jënd ba pare taxaw fay wax yoo ñàkk bopp yoo xam ne ah. parce que xoolal xoolal jigéen joo xam ne wala yaasu billaahi taala moom fi mu toog ni mu soloo sax dafa yëg ne man damay damay am dama. la ilaha illallah sëñ bi loolu sëñ bi loolu garaaw na yow yow yaa ngi toog di mooy yàlla yow dañ yow dañ la fa indi pour lan dañ laa xool ba gis ne yow place bi moom boo fa nekkee xam naa ne da- njartee ma dana bari lool nga nga ñëw fa sëñ bi sol yoo xam ne sëñ bi jamono ji àgg na foo xam ne sëñ bi neexut a wax wallahi am na yoo xam ne man xam naa ko mun ñëwuma ko wax sax dara lantuma fi nag ndax damay dund do ab sénégalais laa comme ñëpp maanaam xam lu bon taxut a def lu bon dégg nga waaye faaw nga xam lu bon li ngir man koo moytu ko nit ñi Xudayfa nee na dañu laaj sallallahu alayhi wasallam aw yiw ma koy laaj aw ay ndax su ma xamutu ay danaa ci tàbbi waaw su ma xamut aw ay danaa ci tàbbi kon nag borom bi subhaanahu wa taala nii mu santaane jigéen war koo muuroo soo duggoon ci barab fekk jigéen ji muuroo noona wallahi da nga koy jox wor ma soxna si nga koy wooyee te ñi mu ko wax baat boo xam ne si daa dëng waaye kuñ ci yab rek ci yow la kuñ jigéen ji buñ ko yebee rek ci moom la buñ ja yebee jigéen ji rek di wax ak moom ay baati caaxaan daa fekk moom ci wax moo bindoo noonu moo wane ne man nii noonu laa tëddee te yow da ngaa naa xamoo xamoo yàlla kan la war a jaaral ci sa biir bi kan la war a jaar sa biir bi ma kan moo kan est-ce que yow ki- ya- sa biir bi yàlla bëgg cee jaarale koo xam ne ci ci ñiy defar xeetu lislaam ca lay bokk nga bëgg a sàggane noonu sa bopp jigéen dafa rëy lool ci lislaam wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wala yadribna bi xumurihinna ala jiyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li buulatihinna seen taar boobu nag dëgg la mën nañ koo feeñalal ñan seeni boroom kër hee illa li buulatihinna jigéen ñi tey ji muñ soloo ba rafet dañuy waaj a dem dañuy waaj a génn solo nii rek pour seen borom kër nii rek nga xam ne maam yére yi gën a foor dañ koy sol pour seen borom kër rek déedéet boo gisee jigéen sol yére bu rafet xamal neen man nga ko laaj foo jëm day waaj a dem te yàlla nee na ma tax seen doom yi lañ ko laaj yaay foo jëm yaay foo jëm ndax xam nañ ne maanaam moom wax dëgg yàlla sol lu tey da loolu yaa ko yaa ca so yaa ko yaa ko jënd xaalis bu bëree bëree bëree bëri waaye boo koy sol dëgg-dëgg ca bit ca xewa la koy sole ah tey dem ca xew a sol ko waaye du ko fee du ko feeñal ci biir kër gi pour yow te alxuraan dane bu ñu feeñal seen zina illa li boolatiina xanaa wala lan aw abaihina wala seen baay seen baay mën na ko gis wala ñan illa li boolatiina aw abaihina aw abai boolatiina wala baayub seen jëkkër maanaam sa jëkkër yow jigéen ji baayam mën naa gis sa mën naa gis sa taar du juróom aw abnaihina sa doom ju góor mën na koo gis wala sa jëkkër ji ay doomam yu góor ba tey mën nañ koo gis aw abnai buulatihina wala say mbokk yi nga bokkal ndey ak baay wala ngeen bokk baay wala ngeen bokk ndey aw ixwaanihina la juróom aw bani ixwaanihina wala sa bokk yooyu seeni doom maanaam sa doomi mbokk yi sa mbokk yu góor yi seeni doom aw bani ixwaanihina wala sa mbokk yu jigéen yi seeni doom aw bani axawaatihina wala aw nisaihina wala yéenu neen yéen jigéen ñi jigéen mën naa sol taar nekk ci moroomi jigéenam loolu mën naa nekk jigéen mën naa sol lu rafet nekk ci moroomi jigéenam loolu mën naa nekk aw nisaa'ihina wala jigéen joo xam ne lim sol rafet na naam waaye ñim jàkkaar lool ñooña moom moo leen moom ay jaamam lañ aw maa malakat aymaanuhunna aw taabiina gayra ulil irbati min ar-rijaal wala al toppe yi nga xam ne ñoom amuñu aaju ci gayri ulil irba mina rijaal maanaam ci góor ñi da ci am ñoo xam ne si seen xel matut benn ñoom ay dof lañ wala benn ay kanas lañ maanaam yëguñu lu gaal gi riir ñu maanaam seen xel matut daal nga xam ne amuñu aju ci góor ku mel noonu jigéen mën naa mën na mën na ko woon taar parce que du yàgg yàgg moom ba mu wax ci mbirum jigéen waaye bu dee koo xam ne si day day day dof dof lu donc waaye dofut dégg nga nga xam ne maanaam da nga koy gis. muy wax ci jigéen ñi wax yoo xam ne fi daal di wër ne kii moom maanaam moom xam bu defee itam feneen la dof waaye fii dofu fi ku mel noonu yow jigéen ñi mayuñu mayuñu la ngay feeñal ab taar ci kanamam waaw sallallahu alayhi wasallam am na kuñ kuñ koo xam ne fi ku ñu wax hiit da da ko xawoon a ubbil noonu benn bis mu dégg ko muy wax ci jigéen wax yoo xam ne si da ko dàq maanaa xam le ne kii moom may mayeetuñ ko muy dugg ci kër gi ci biir nit ñi da ci am ñoo xam ne dañoo xam ne dañoo mel dañoo mel ne ñoo xam ne taxu ñuy yeewu lool noonu nga xam ne yow da nga xam ne ñii moom yiwuñ lool ànduñu ak seenum xel mu mat ñooña jigéen mën naa amub taar te fekk du leen ko nëbb wala gone yi nga xam ne ñoom tollaguñ ci mën a xam awray jigéen gone gu mel noonu itam yow jigéen ji mën ngaa sol lu rafet ci wetam ndax moom xamagul sax lan mooy taar ak lu dul ab taar bu dee gone goo xam ne gu ràññee la nag ba xam luy taar ak loolu moom yow de amoo ci droit awi tifli alladina lam yazharu ala awrati nisa borom bi tekki na wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama maa yukhfiina min zinatihinna bu njëkk jigéen ñi jigéeni arab yi dañ daan takk ci seen tànk yi ay ay téqal ma li ñuy wax ay téqal ma maanaam ay lam yoo xam ne dañ koy takk ci seen tànk yi bu ñëwee ba jub ay góor di ko dóor ci suuf di ko di ko dóor bu ko defee muy yëngu góor ñi di yëg bànneex ci loolu su mboroom yàlla tere leen ko nee na yéen jigéen ñi bu leen jël seen tànk yi di ko dóor ci ci suuf ngir góor ñi mën a xam li ngeen nëbbu ci ci wattaay ci bu dee suñ jamono ji mën ngaa wax ne téqal ma yooyu amatut waaye ba léegi jigéen ñi am nañ yoo xam ne mën nañ caa fitnaal góor te muy tolloo ak téqal ma yooyee ndax mën nañ laa romb ba jàll ba jàll ba dem seen yoon doo xam sax ba xam luñ làq ak luñ làqut waaye bu fekkee ne jigéen ñi moom moo ko jublu ñëw ba tolloog ay góor di dóor tànk bi ci suuf ngir ñu am lu yëngu ci moom pour ñu xam ne maanaam kii kat am na lu nekk ci moom loola moom yàlla da ko arabal moo tax borom bi nee na wala yadribna bi arjulihinna lu tax li yu'lama ngir ñu xam maa yukhfiina min zinatihinna borom bi nee na wa tuubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minun yéen ñi gëm yàlla yépp tuub leen ku ci daan mas di xool tuubal ku ci masaan ku ci masaan daan maanaam di xool nu mu la neexee borom bi nee na tuub leen yéen ñi gëm yàlla waxut yéen ñi yéen ñi nga xam ne ay julli ngeen de ayyuhal mu'minuuna la wax kon iman mën naa nekk ci li ba noppi léeg-léeg seetaan ne man waaja tuub leen yéen ñëpp jëm ci suñu borom subhaanahu wa taala la'allakum tuflixuuna ndax léegi ngeen mën a texe yàlla na yàlla sama borom dimbalee lii yàlla di jàngale lépp nu mën koo jëfe yàlla dimbale nu sellal suñuy xool te dimbale nu itam dox suñu digganteeg lépp loo xam ne lu araam la wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin